Je suis le lieutenant-colonel Chertine, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 2 par ailleurs, commandant les opérations de secours lors de l'accident survenu hier nuit à hauteur de Allocagne. Il faut dire que nous avons été alertés vers 2h euh, mois le quart. Arrivés sur place, nous avons constaté qu'il s'agissait justement d'une collision entre un camion frigorifique et un bus de transport 60 places. L'engagement d'un dispositif très important, composé de 6 ambulances, dont 2 médicalisées, 2 fourgons pompe-tonnes, un véhicule de secours routier et 2 véhicules d'intervention, plus 50 grades de sapeurs, dont 2 officiers, nous a permis dans un premier temps d'effectuer le sauvetage de trente cinq personnes. Ensuite, la mise en sécurité d'une quinzaine de personnes. Et malheureusement, nous, nous déplorons la perte de 16 individus, dont 9 de sexe féminin. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les pèlerins qui empruntent les axes pour effectuer leur gamon. je demande aux usagers de la route le respect strict du code de la route. Aux piétons, nous leur demandons d'emprunter les passerelles qui sont érigées sur les autoroutes et d'éviter la traversée de l'autoroute. mbokk yi comme ni ma ko waxee sànq. Euh, démb dañu woo ci benn l'accident man la colonel Cheikh Tine bi nga xam ni maa yor euh, groupement d'incendie et de secours numéro de fii ci Thiès ak Diourbel ñoo ngi ñu woo nag accident démb ci deux heures du matin bi ñu see gis nañ ni benn euh, camion jën moo tase ak benn bus de soixante places euh, jumtukaay yi ni indi te mu tolloon ci juróom benn ambulance ci biir juróom-benn yi ñaar yi médicalisé benn oto boo xam ne moom la ñuy wax véhicule de secours moo nuy permettre bu ñu amee problème pour accéder ci victime yi mu mën a daggal tool yi ak ñaari véhicule d'intervention léger cinquante grade de sapeur yu ànd ak seen ñaari kilifa ñuy wax ñaari officier moo ñu permettre rapidement ñu sauver trente cinq personnes maanaam fanweer ak juróom. ensuite fukk ak juróom yoo xam ni euh, dara jotu leen génn nañ leen teg leen foo xam ne nii wóor na ñu mën a euh, sauver wu euh, ñoo ngi jaal nag ndeysaan fukk ak juróom benn yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci fukk ak juróom-benn yooyu juróom-ñeent yëpp ay jigéen lañu waaw bi ñu egsee nag li ñu xawoon a gën a sonal moo doon oto bi dafa tànc woon tàncaale nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir donc laajoon na ak oto boobu ma leen wax sànq ñu mën a dagg tool yi pour mën a accéder ci vi ci victime yi pour mën leen a génne yóbbu leen rapidement may profité rek di lancer appel ci ñi nga xam ni dañuy dem di gàmmu ji bu dee chauffeur yi nañu daw ndànk te respecté code de la ku ci sonn wax dëgg yàlla toogal ba ba ba ba noppalu ba jotaat sa bopp. ñi nga xam ne aussi dañuy traverser autoroute à péage beeg yu tali yooyu bu dee autoroute à yi nañu jaar ci kaw passerelle yi ñu éviter jaar ci kaw autoroute bi ñoo ngi profité di jaal. ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan waaye itam di ko ñaan di ko jaal askanu Sénégal gi yëpp ñoo ngi leen di ñaanal gàmmuk jàmm jaa ngeen jëf jaa ngeen Je suis le lieutenant-colonel Chertine, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 2 par ailleurs, commandant les opérations de secours lors de l'accident survenu hier nuit à hauteur de Allocagne. il faut dire que nous avons été alertés vers 2h euh, moins le quart. Arrivés sur place, nous avons constaté qu'il s'agissait justement d'une collision entre un camion frigorifique et un bus de transport 60 places. L'engagement d'un dispositif très important composé de 6 ambulances dont 2 médicalisées, 2 fourgons pompe-tonnes, un véhicule de secours routier et deux véhicules d'intervention, plus 50 grades de sapeurs, dont deux officiers, nous a permis dans un premier temps d'effectuer le sauvetage de 35 personnes. Ensuite, la mise en sécurité d'une quinzaine de personnes. Et malheureusement, nous, nous déplorons la perte de 16 individus, dont 9 de sexe féminin. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de tous les pèlerins qui empruntent les axes pour effectuer leur gamon. Je demande aux usagers de la route le respect strict du code de la route. Aux piétons, nous leur demandons d'emprunter les passerelles qui sont érigés sur les autoroutes et de la traversée de l'autoroute mbokk yi comme ni ma ko waxee sànq démb dañu woo ci benn l'accident man la colonel Cheikh Tine bi nga xam ni maa yor groupement d'incendie et de secours numéro 2 fii ci Thiès ak Diourbel ñoo ngi woo nag accident démb ci deux heures du matin bi ñu egsee gis nañ ni benn euh, camion jën moo tase ak benn bus de place places euh, jumtukaay yi ni indi te mu tolloon ci juróom-benn ambulance ci biir juróom-benn yi ñaar yi benn oto boo xam ne moom la ñuy wax véhicule de secours moo ñuy permettre bu ñu amee problème pour accéder ci victime yi mu mën a daggal tool yi ak ñaari véhicule d'intervention léger cinquante grade de sapeur yu ànd ak seen ñaari kilifa ñuy wax ñaari officier moo ñu permettre rapidement ñu sauver trente cinq personnes maanaam fanweer ak juróom ensuite fukk ak juróom yoo xam ni euh, dara jotu leen génn nañ leen teg leen foo xam ne nii wóor na ñu mën a sauvé wu euh, ñoo ngi jaal nag ndeysaan euh, fukk ak juróom-benn yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci fukk ak juróom-benn yooyu juróom-ñeent yëpp ay jigéen lañu waaw bi ñu egsee nag li ñu xawoon a gën a sonal moo doon oto bi dafa tànc woon tancaale nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir. donc laajoon na ak oto boobu ma leen wax sànq ñu mën a dagg tool yi pour mën a accéder ci vi ci victimes yi pour mën leen a génne yóbbu leen rapidement may profito rek di lancer appel ci ñi nga xam ni dañuy dem di gàmmu ji bu dee chauffeurs yi nañu daw ndànk te respecté code de la ku ci sonn wax dëgg yàlla toogal ba ba ba ba noppalu ba jotaat sa bopp. ñi nga xam ne aussi dañuy traverser autoroute à péage yu tali yeeg yooyu bu dee autoroute à yi nañu jaar ci kaw passerelle yi ñu éviter jaar ci kaw autoroute bi ñoo ngi profité di jaal ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan waaye itam di ko ñaan di ko jaal askanu Sénégal gi yëpp ñoo ngi leen di ñaanal gàmmug jàmm jaa ngeen jëf jaa